su ma ah. jógee su ma ñëwee ci combat bi nga xamante ni ñii woon nañ du am ñii ne day am ba ci keroog ñu dégg ki nga xamante ni mooy suñu papa Gaston nee na hmm. combat boobu dafay am kenn mënu koo teree am ndax moom la njëkk a signé ay ballagay Gaye Gris Bordeaux Balla Gaye Eumeu Sène mu diggante ballagay Gaye ñaa ndax Boy ñaa keroog gis nañ ko bi mu duggee ci plateau bi waxi ko bëgg a bëgg Balla Gaye dong la wax te xam ne fi mu toll nii xelam dal na ci mu jàkkaarloog Balla Gaye naka gisee Balla Gaye Boy waaw xam nga combat ngi noonu Balla Gaye Boy Niang Boy Niang duggoon na kër Double daan fa Sa Thiès non yàgg na yéen yàgg yàgg na leen a solal de waaw géejawaay non géejawaay basang li may wax Modou Lo daal lal basang Pikine mais Boy Niang laloon na basang géejawaay contre bu Lac de Guiers xaw a laali basang gi jéem a xooliwaat beneen solution mhm. mu dem passé at mi wul mu duggaat géejawaay mhm. mais Balla mooy ki daan dugg géejawaay mu génn la Balla da daan nekk si ay combat Tapha Tine di daan si géejawaay bi mu paree dana Tapha laa soxla mhm. bi mu jëlee tafaatin tafaatin da ko ne est-ce que li Elton dékku di ko dékku yow. Mhm. mu ne ko tay ma wala kan mooy xeex. Mhm. keroog bi arbin ne pire tafaatin daa génn saako yi. Mhm. boobu baala la wala du baala. indil ma image boobu nga indi image bu baala ak Gris Bordeaux ak kii ak Bombardier nga indi image bële ak image ba xam préparation yooyu bokk nañ. mais mais Balla Gaye Boy Niang. Balla Gaye la ci mën avantage pour daan Boy Niang. entraîner def contact bu doy Balla Gaye mu wér xaju si Boy Niang. barki yàlla gér gér piir la der piir la mais daa wàcc yoonam wan ñu beneen yoon ñu muñal ko muñalaat ko kon wax ko jot na. digganteem euh, ak Gris Bordeaux mhm. naka la ko war a mën a ba pour am ci ndam parce que su ma nee pour am ci ndam xam naa ne supporter Balla Gaye nga te boo doon conseil Balla Gaye da koy conseillé ci anam bi nga xamante ne ci la mën a amee ndam. soo ko doon conseillé wala nga koy jàllale message naka la war a mën a bëri Gris Bordeaux ndax gis nañu diggante mën a Gris Bordeaux xeex bi bari na ci ba ba léegi jël amul mu war a bëriwaat ak moom naka la war a mën a bëri Gris Bordeaux xanaa xamoo Gris bu Gris ni ma ko mujj a gis mhm. su entraîné waatul du bokkaat Gris Bordeaux waaw maa ñemee wax loolu man la am parce que Gris ni mu doon entraîné ay ñoom bi mu amee ay ñoom Modou Lo ay ñoom Balla Gaye forme boo mu nekkoon mhm. ak forme bii mu nekk nii ma koy mujj a gis non bokkul nekkul ci dara non non non Gris commencé gul baala bu jógee si compétir bii bu compétiree. Mhm. parce que bu bëree revanche yooyu bu paree day gën a compétir giri parce que giri Balla rek lay xaar. Mhm, te mhm. Balla si Bombardier la jóge bu delloo si Eumeu Sène day gën a compétir. mun na am giri rek gañe ko. te giri dafa cogoon bu demee boo ko mbasee day pànje day ñàkk giri xam kan moo aay si moom Modou Lo musu koo laa yaa lay def génn mu daanu parce que li muy li muy signature mooy garaaw da koy teg pression. Gris bu ñëwee day ne dama koy rajaxe mhm. bu ne yaa mu dóor mu génn mu mu këpp parce que bëri ndaxante la